jaare leen ko kilifa yu gën a mag dañ leen di jàpp waaw jaare leen ko mais ni nga bëgg a doxale la dama dama ragal dama jëm ci problème fan la moo tax nga calme non aw ma fii fii fii c'est quoi ak suma bakkanu njaboot yàlla ak suma bakkanu doom lii rek moo newoon si oto bi lii lii rek moo newoon si oto bi te man dañ ma ko jox dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko jox waaw kilim baax baax ku la ko joxoon ah? ku la ko joxoon ah? kanu bi moom dafa voyage sax wallaay dafa voyage man dafa ma ko joxoon bu yëngatu sinon affaire day seere bu ne ma grand grand yow li ci jigéen ñi do arrangé waaw grand nañ ko gérer dañ koy gérer bàyyi bu ñu eggee fan fan lañ koy gérer bàyyi bu ñu eggee fale brigade non foofu day doy waar ah doy waar ndax la foofu day doy waar non bàyyi ñu dem ah? rek fii fii mbedd bi nii hmm? non non waxale ma doxale mënu muy demee rek ma gérer ko léegi non bàyyi ah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 laa ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay yàqu